kuréel gi ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllug cet geek cetel gi di service d'hygiène bu Touba amal nañu lakkum ay produit yoo xam ne baaxul ñi ngi ko amalee ci kàddu balo ci ay produit yoo xam ne baaxul ci askan wi ngir ñu jëfandikoo ko. tey ñi ngi ñëwoon fii incinéré li nga xam ne mooy produits périmés yi nga xam ni euh, wala avariés yi nga xam ne jàpp nañ ko ci. ci ci ci population bi ci commerçant yi euh, mu tukkee ci événement yi nga xam ne donc ñoom ñoo fi am soit muy euh, maggal bu mag bi wala yeneen événement religieux yi nga xam ni am nañ fii ci Touba et également sorties yi nga xam ne agents yi dañ koy def constamment di dem sur le terrain di visiter li nga xam ne donc mooy mooy mooy ERP euh, e yi donc euh, ci yooyu la ñu saisir li nga xam ne mooy produit yi. lim boobu nag bi ñu ko xayma mu toll ci fukki tonnes ak juróom juróom-ñaari millions ci suñuy koppar ci produit yooyu nga xam ne mën naa lor askan wi. li ko constitué ay produit yu bëri la euh, am na ci ay meew muy meewu pëndax wala li nga xam ne meewu ndox bi la am na ci ay. yi nga xam ne dañ koy saf safalee suñu togg yi am na ci également ay boissons am na ci également ay jus am ci ay pat eh, am ci ay vermicelle ak yëpp mu ngi ci biir eh, yooyu donc nekk loo xam ni eh, jàpp nañ ko tey buñ ko xaymaa mu nekk ci fukki fukk fukki tonne ak juróom ci loo xam ni maanaam ci quantité la également ci valeur ci wàllu xaalis mu toll ci ay 7 million yooyu donc mu nekk loo xam ne tey moom lañ ñëwoon fii gannaaw bi ñu autorités yi jàppalee ci loolu muy autorité administrative yi locale ak ñëpp sanitaire ak yëpp taxawuñu ci pour que ñu mën ñëw tey fii vraiment insiné ko ànd ceeg agent yi ñi nga xam ni ñoom du ñu tàyyi benn yoon tout le temps ñu ngi ci terrain bi di def liggéey bu am solo loolu moo ñu indi woon fii tey ngir ñu mën a lakk produit convenablement <clears throat> ba nga xam ni vraiment kenn dootu ko mënti jëfandikoo. booba lek dajale nag ñu daal di koy amal gannaaw màggal ko Touba ak yeneen i événement yi nga xam ne rek jotoon na fee jaar waaye itam liggéey gu solo yi nga xam ne booba ak léegi ñi ngi koy amal di dem ci commerçant yi ngir nangu yooyu les produit yi nga xam ne askan wi waratuñu koo jëfandikoo loolu la sax loolu mooy tax ñu koy génnee soit date bi mooy jot duñ ko waroon jëfandikoo dafa weesu ou bien produit bi nañ ko dencee woon moo jaarul yoon waaw mën na aussi produit yoo xam ne date bi sax mën na xam ne jotagul waaye comme ni ñu ko waxee denc ba moo jaarul yoon wala en tout cas mu am leneen loo xam ne peut-être arrivé na ci ba produit bi en tout cas nekkatul loo xam ne war nañ ko mën a jëfandikoo su loolu amee nag dañ koy dañ koy retirer de la de la vente am na ci aussi ay benn benn ci ñoo xam ne ñoom it euh, bu fekkee produit bi dem na ba date bi passé ñu gis ne mëntuñ ko jaay ñoom ci seen bopp ñooy jóg ñëw indi produit bi ñu defal leen décharge su ko defee ñoom ñu daal di euh, ñu koy bàyyil ñu daal di ñu daal di koy boolee ci produit yi buñ koy insérer ñu insérer ko su ko defee balaa ñuy def loolu nag dañuy jaar fi nu war a jaar yëpp ci autorités yi am ci ñoom ndigal li nga xam ne moo ci war su ko defee ñu ñëw daal di eh, lakk produit bi ba nga xam ne keneen doot ko mën ci jëfandikoo. parce que dëgg askan bi ñuy ngi lëkkaloo ak ñoom eh, bu baax sax mais di leen gën a woo ci lëkkaloo boobu ndax eh, bu nee tey jàpp nañ 15 tonnes produit boobu moytul xëy na la rëcc. romb na ko fuuf su ko defee loolu nag askan bi moo ci mën a jàpp ndax euh, li ñu am Touba dafa rëy gannaaw dakaar mooy ñaareelu dëkk bi gën a rëy ci Sénégal euh, li fi nekk ci ay agents ak ay moyens xëy na mën na ko bañ a mbatale waaye bu ci askan bi jàppee je pense que loolu jafe-jafe boobu dinañ ko mën a saafara. Euh, li nga xam ni mooy kuréel yi nekk fii ci ci ci ci dëkk bi. commune bi ñu ngi ciy jàpp tey déjà commune bi boo gisee ñu ngi ñu abal seen ñaari oto yi ak seen ay employés <coughs> vraiment di ñu accompagner bu baax ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi di leen ci remercier bu baax a baax également conseil départemental aussi màggal gi doon jàppale woon nañu kon vraiment ñi ngi am relation vraiment yu baax ak li nga xam ne mooy collectivités locale yi mais di leen gën a tàllal suñu loxo su ko defee ñu gën a ci jàppaat encore ngir liggéey bi gën a a jaar yoon. ki nga xam ne moom moo jiite gogale ko kuréel di xamle ne jamono ji am nag taxawaay gu am solo goo xam ne ñenn ci commerçant yi ñu ngi koy am ngir yóbbu yooyu les produits waaye terewul muy ñaax askan wi ngir ñu gën a bàyyi xel ci li ñuy jëfandikoo di ay produit yu périmés.